نون والقلم وما de la commission communication donc du comité Yaatal Mbindum Alxuraan. Voilà, nous sommes là au Grand Théâtre pour, euh, les besoins du concours initié par la C3S qui est nommé Yaatal qui a comme but donc, de promouvoir l'écriture et la calligraphie du Saint-Coran. Et nous sommes ici pour euh, célébrer le concours proprement dit. Comme vous venez de le constater, les candidats sont dans la salle de l'examen en train de, euh, de, faire leur examen. Et chacun d'eux a un, un, un, un, sujet, un robot en quelque sorte, choisi par le, par le jury. Et ils ont tous trois heures d'horloge donc pour terminer leur examen. À l'issue de cette, un, euh, euh, une cérémonie de remise des prix qui est prévue le 26 mai, ici même au Grand Théâtre, et ces lauréats seront primés donc, au, degré de leur mérite. Voilà, au début, on avait 540 candidats répartis dans presque toutes les régions du Sénégal. Et on fait un, une présélection euh, à laquelle on 60 d'abord, 60 euh, parmi ces, 3, ces, ces, ces 140 euh, déposants, ces 60 ont passé euh, un examen, un examen qui était en quelque sorte hum, mm, un premier tour, j'allais dire. Et à l'issue de cette, de cette première phase, on a sélectionné 35 qui sont présentement ici et qui sont en train de faire l'examen. Salam alaikum, Khadim Bay. maa ngi bokk ci commission communication ci comité initiative yaatal mbindum alxuraan comme ni ko Mahmadan Dieng waxee léegi pour def concours bi nga xamante ni moom la ñuy c moo ko taxawal mu tudd concours yaatal mbindum alxuraan ñu jublu ci dundalaat yaatal mbindum alxuraan muy doon lu am solo loo xamante ni dafa bokk ci mënul ñàkk ci njàngum alxuraan ba pare ñu seetlu woon ni dafa xaw a dee wala nit ñi xaw koo sàggane ki nga xamante ni nag mooy président directeur général bu c 3 nga xam ni moom produit wu daara la mu xalaat ni loolu war na ci apporter touche am pour dundalaat ko loolu moo ñu fi boole tey donc am na procédure bu jiite mais tey jii ñu ngi ci ñëw ci li nga xam ne moom la ñuy wooyee concours bi nga xam ne ci la ñuy tànne ñi nga xamante ni bu ñu demee incha allah le 26 fii ci Grand Théâtre ci la ñuy jël trois lauréats yi ñu ñu ñu ñu jox leen neexal. waaw cérémonie bi incha allah ñu ngi koy def le 26 mai bii di ñëw ci koor gi fii donc ñett njëkk yi ñoom ñooy doon lauréats yi ku njëkk ki dina am 5 millions. ki ci topp dina am 4 millions 500 ki ci topp dina am 4 millions mais ñeneen ñi ci des yëpp tamit du ñu dem ak loxo yeneen dinañ leen def joxal eh, ay neexal incha allah. jiite commission scientifique bi ci wàllu concours alxuraan bi koy wax groupe yaatal mbindum alxuraan eh, tey nag ñu ngi ñëw fii ci grand pour def fi liggéey bu mag bi nga xam ne moom la ñuy tuddee maanaam final bi ndax def nañ. Eh, Euh, dépouillement yi ci nombre bu njëkk bi njëkk a jël ci candidature yi muy cinq cent quarante ba cinq cent quarante huit sax candidat ñu def dépouillement bi xool génne ci soixante soixante yooyu nag ñoom lañ jëlaat bindloowaat leen balaa loolu pour leeral ne ni nga xam ne noonu la candidat yi di bokke da ngay bind benn page boo xam ne ñu koy tuddee aw xët xët wi dañ koo yemale ci fukki bind ak ñett soo ko bindee ba noppi def ko ci enveloppe bind ci sa adresse euh, boutique euh, yi c 3 ci Sénégal foo ci xam nga dem déposer fa wala Ligue des écoles coraniques ay représentants ci région yi wala ci département yi nga dem déposer fa loolu nag du wóor jury bi ndax ak comité scientifique du leen wóor yow da ngaa xool lii nga bind wala xooluloo ko wala danga dem ci benn téere photocopier wala déet moo tax ñooñu biñ dikkee biñ defee dépouillement bi gis ne 60 yi ci dàq bind ñoom lañ convoqué pour ñu def benn demi finale demi finale boobu ñoom ñëpp ñu taxawu leen surveiller leen kenn ku nekk ñu jox la këyit jox la euh, joxal la suñ bopp ne la baat sàngam ngay tàmbalee baat sàngam ngay jeexal toog di la xool te doo ko doo ko xool fenn doo yor appareil doo yor kaamil doo yor dara kenn it du laaj sa morom dañ leen di surveiller soo bindee ba eggal maas ko li ci war lépp nga def ko ci biñ noppee nag ñu libere leen jël copie yooyu nag biñ ko xoolee ñu tànn ci nag trente cinq personnes yi nga xam ne ñoo nekk tey jii ci Grand Théâtre pour def lan euh, finale bi trente cinq yooyu nag ni ñuy doxalee ak ñoom ñu ngi ci biir di bind comme ni ngeen ko gisee kenn ku ci nekk. jox nañ la jumtukaay yi nañ la ko joxe woon ca bee paase ñu toog di la xool nga bind boo bindee ba pare nag ñi nga xam ne ñooy euh, def euh, euh, ate bi muy jury bi ñu koy tuddee lajnatu taxkim ñooñ ñooy jëlaat kayit yooyu buñ ko xoolee kenn ku ne nag robo lay bind robo mooy boo jëlee xisibu alquran bi nga xaaj ko ñeenti xaaj loolu mooy robo robo boo ko xoolee daani li ci gën a bari bu sa mbind rëyul lool lool ñetti xët maanaam ñetti page du ko xaw a sori loolu nag mboolem li ci war a dem da nga koy da ko ciy def. yooyu yëpp lu ci nekk dafa am ay normes yoo xam ne boo ko bindee ba mu egg su fekkee dara manqué na ca rek dañuy dañ koy noté benn bu ci nekk suñ ñëwee ci notification boobu dañ naan mbind mu rafet mi nga xam ne ku ko gis xam ko nga xam ne dafa am ay normes. mbind moomu boo ci 100 points yi ñuy laaj mbind mi jox nañ ko ci 40 points yi ci mën a bind li ñuy wax rasmul usmaani mooy yax bi ni nga xam ne noonu lañ ko xamee ci histoire alquran ci mboolem ci àddina bi yax bi noonu lañ koy bindee ku ko euh, bind bind bu wuuteeg moom dañuy jàpp ne lii du alquran rasm boobu pour nga respecté ko itam 30 points lay doon ci 100 yi muy 70 kon la ca dollikuwaat mooy euh, mokkal gu wér céng 30 points lañ ko jox mokkal gu wér céng niñ koy xamee mooy yàquloo damuloo araf jéluloo ay baat damuloo ay masque jël loo fu aaya war a nekk bu dee suuratu nangam suuratul baqara ci madaniyatun mi ataani wa xamsun wa samaanuna aaya boo ko defee mi atun wa situuna wala leneen ñu xam ne kon yow li nga bind nii am na ay yàq su ko defee jury bi ñoom ñu mokkal alquran lañ di ay jàngalekati alquran gone yi daan bind ay kaamil ñu di ko topp kon ñoom xam nañ li ñuy àtte lu doon te itam wutal nañ ko ay règlement intérieur yoo xam ne ak ay dawabit norme yoo xam ne dañ koy respecté ci correction bi loolu mooy taxawaay bi nga xam ne fi la ki bi toll anta bi ni'mati rabbika bi majnun